yan din ab feeña yan din ab feeña yan din ab feeña bi ci biir àll bi am na pël bu fay sàmm ay gaynde ci gaynde yooyu moo jël ma ci ñaari karaw ñu indil ma ko ci tafa di mhm. ciy daam di wili na wuy njoxoy ne njoxoy ne jógal nga indil ma karawu gaynde bi ah, aleejo woni ƴetti fetel mum eyi ina abbe barottoya ina ɗi heeɓi waroy eyi yawat feere mbaɗa kattude bawal ma woto war hen hay ndiga aga def fexe mhm. ba gaynde yooyu noon mujjam mujjora e benn le 6 novembre ci arène nationale jàpp sa seen affiche point com di seetlu Moustapha Gueye ci plateau bi ak ñu ko dar ñu di wax lu leer naññ lu mel ni lañ set tey ci bët duma tey ñëw si miñ gàll ci loos duma tey ñëw gaynde gi sama kanam duma tey ñëw moo war a dal ñaari mbir yi ginnaaw bi na la ñebee kon boog tëf. ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar di am mbégte rek ak contentement di argin saa su ne si programme Lutte TV tey nag Omar ñu ngi fii parcelle unité 22 seet si benn xale champion ndaanaan lamba nga koy bàyyi xel nag parce que tey boo nee Anaconda rek xel yëpp dina am si jëmu ju mu dem jëmu jooju nag moom la Lutte TV seet si tey mu am combat nag bu rëy combat capital le novembre incha allah mbër maa ngi lay nuyu di la ziar. oui Bouga ñu ngi lay fay di wax onze billah bismillah na wan yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf si Ahmadou Bamba Khadimu Rasul gàcce ngalaama borom daar Noorin ay sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur du nuyu waa axlu làmb di si jiital suñu père Birame Ndiaye di nuyu gox bi ma nekk muy waa parcelle rawatina unité 22 bi ma nekk di la bëggee bu wér a wér a wér di bëggee bu ñu la ne fekk nag ak sa mafia bi mu mel ne fi mu toll nii moom xam naa ne si dernier réglage yi rek ngeen nekk fi mu toll nii mais euh, pour ñi la xamul wala ñi lay dëgg boo ñu mënoon wax tuuti rek kan mooy Anaconda fan la dëkk fan la juddoo fan la yoroo ak lu ko dugal ci làmb waaw pour ñu xamul mooy Anaconda benn tout tànk la rek waaw dëkk 22 waaw nekkoon 22 di nekk igir Birame Ndiaye nekk fa doon fa jaay ndox mhm. école bi laa doon jàngee commencé ngoon bi ma ñëw fa jaay ndox di dem ba BBS may teel seen yére yooyu noonu après di dem di dem ba commencé toogal Pape Moro Cumbukaay moom laa jaar ba dugg si làmb waaw mu ne ne Pape Mor Lo tamit bokk na si la influence ba nga dugg ci làmb. waaw Pape Mor parce que ngeen moom noonu contacté moom la mujjee jël ne mu am téye ko ba ba amee mbapat nga ngeen boo ko moom laa njëkk ngeen boo bëri si mbapat. seen relation yéen ñaar. Pape waaw sama grand la sama lépp la waaw tarbiyewu naa ko tamit bu baax moom. waaw parce que boo xoolee moom laa doon toogal mbapat cumbukaay ba instant bi ñu terewee dugg si arène ko toogal cumbukaay ba instant bi ñu terewee booy ndaw yi kii cumukaay léegi la arrêté di ko taw cumukaay léegi bu bëri ma ñëw yéeg toog ci tribune bi a ah, noonu yéen a ngi déggante Pape ñu ngi déggante waaw daa faax de <laughs> Pape xam naa daa gis lu bu baax mu ngi siy jàpp di ko sant di ko tamit mu ngi siy jàpp di ko nuyu waale bu baax a baax waaw parce que moom naa ne na noo naka rek waaw mais dafa rawati bii parce que carrière moom yaakaar naa booy dem di gën a teg muy métti parce que xam nga li sa kanam mooy gën a métti li nga romb quoi waaw. pourquoi choisir jël caatu ngéwél. caatu ngéwél parce que combat bu gars yi wax ne moom naanaan la ne man mooy loolu naanaan laa moo tax ma choisir ko gars yi ma ko proposé tamit quoi waaw léegi ma xam ne la rek ma jël ko. naanaan la de bañ ko woowee mbayaar bi. waaw champion la naanaan la waaw. mbayaar. mbayaar moom ah moom kay moom mbayaar du mbayaar. mais yow loo xam ci mbayaar yow lu maar maar kay tegkat la kàrkat la. maar fas la de fas fas bu am doole bu gaaw fas boo xamante ne maanaam fu mu tëri ñu koy tudd loolu man bokkul ci loolu laa xam mbayar. waaw xam wax day am pensa yi ñu andi benn wax boo xamante ne kii da koy déggee nii kii déggee ko nii ñun suñu déggukaay mbayar kar lañ ko lañ ko déggee mais comme li nga andiwaat noonu fas bu am doole la ak mais fas lu mu am doole bu ko yeew fekkee foofu la xasu war a xëy waaye loolu hmm. waaw. noo waaj lan lan nga liggéey ci combat bi loo si waaj. combat bi début trois séances laa doon def instant bi dem nañ ba après def deux séances instant bi benn séance lañ may def loolu waaw waaj naa bu baax a baax. loo si liggéey endurance cardio doole rapidité lan lan lan nga liggéeyal caatu ngewel. lépp laa si liggéey waaw surtout contact bi nag waaw. liggéey moom la day bëre moom. waaw bërekat la naanaan la dañ ko koy nangul wax dëgg yàlla champion la. mais maag moom ku gën a ku dàq bëre incha allah yàlla na suñu borom may ndam. parce que loolu wóor loolu gëm-gëm la rek bu nekk si man. ki nga ah, ku moom sax mbër mu am loolu laay wax man. combat bi est-ce que doon def pression tey le 6 bëri war si bëri non man moom laa ma wax dëgg yàlla dara ko waa mais man mënu ma si am pression xaw ma la. dañ ma koy wax sax ba si père bi am jaar daf ma koy wax. ne mbër nga war am tuuti pression mais man gisuñu loolu si man ko waa amu si benn pression di ñaanal mbëru parcelles yi si bëri yëpp yàlla na yàlla may ndam incha allah. amoo benn nii nii nii. non

bëre naa ko yoon yoon mais da ngay jël risque bëre kon boo demee làmb wax dafa am sécurité am lépp man la sama waay sama morom foofu noonu man gëm naa ne foofu moom ku jàmbaar moom waroo am pression quoi parce que boo mbobatee dëgg xanaa ku mbobatul mooy ñëw si làmb yi arène bi am pression mais boo mbobatee dëgg wax dëgg yàlla arène nii waroo am pression waaw sa affaire góor la rek. jours yi looy yi naa andi lépp luy neexal làmb. ambiance ambiance bu baax andi cosaan. est-ce que ko jot ci ambiance. ah moom moom moom bañ na ko ba mu ne mooy caatu ngéwél gi. waaw ah, moom caatu xam nga tey xam day yëngal. tey sa sa papa mun na nekk médecin te xamoo confirmé. Hmm. sa bopp di métti nga jënd garab biir yu métti doo wér. Hmm. waaw. jour yi da ngay yëngal. bu baax incha allah lépp lu fay neexal man maa koy def moo dama ko invité rek na ñëw rek. ay yëngal ka tafa daje de caatu ngéwél ak ñoom sita. jour boobu gisuma kenn sama bopp laa gis moom laa gëm. Hmm. waaw ndem yëngal ka dafa nekk. mobilisation. waa ñu ngi koy waaj bu baax waaw bu baax a baax di si profité di woo ku mel ni grand max bu Liberté 4 mu ñëw jàpp si parce que bu dee moom macha allah gars yi nii pare nañ ak lépp mais xam nga moyen moo xaw des. parce que parcelle autorité yi tamit dañoo war a jàppale seen mbër yi quoi wax dëgg yàlla waaw suñu maire bi fi nekkoon muy yàlla mu ngi si doon jàpp mais nekkul fi Jamil moo fi nekk boobu ba tey ñu koy demandé di bëgg jàpp si mais xam nga teguñu dara lu leer stable ñoom tamit. di leen wax tam xam nga ñu jàpp si quoi parce que ñu sport lañ am te parcelle lañ am te ñun mënuñoo woowi keneen ku dul ñoom duñ jéggi di woowi keneen mënuñu dem beneen mairie balaa fenn sa dëkk kon di leen woo ñu ñëw jàpp si bu baax waaw di woo waa parcelle yëpp ñu dooleel ñu parce ñun moom bu dee mobilisation moom naes mi nit yéeng fi mais bolok yi tam foog gars yi jàpp si dooleel ñu ko waa laamu ndaw dafa métti quatre mois ba ma jëlee laamu jëg léegi quatre mois ma kenn ku si jàpp ñii nekk sama ginnaaw ñoo sama doole ñoo ma jàppale wax dëgg yàlla Moussa Sy même bu nekkatul maire tamit yaakaar naa ne parcelle la dëkk war na si mën a jàpp tamit def leen ay jéego rek ni Moussa Sy ay góofaay ak ñoom ñëpp gaa ñu ngi dox si loolu quoi mafia bi ci ginnaaw na daa mel ni pare heure xam nga angal mbaari waa reste moon ñoo toog sama ginnaaw nii ak ñeneen ñi nga dem na nekk mission yi parce que instant bi ñoom ñëpp a ngi si laamu di ko dox quoi di leen bégee ma seen fay man ñi rek na sëriñ Tuubaa waaw bu ñu jógee foofu noonu yaakaar naa ne euh, bu amoon rek loo si bëggoon a yokk tamit. waaw li ma si bëggoon yokk mooy xanaa di santaat suñu waa igri rek bu si mel ni ñoom a maire ak réew mi ko su mi Sonatel ñooñu parce que igri Birame Ndiaye man boo xoolee man maa fa a nekk booy waaw après ñoom boo xoolee dañu ma jiital si lépp waaw ba pare ma chaque ma naan si ñoom laa jàngee bëre parce que damay jël si Sonatel jël si Biris jël si Agogo jël si keneen ak keneen xam man noonu laa jàngee bëre igri bi. waaw mu ngeen neex la maanaam juboo am na seen biir waaw moom sorti seeg def si la ñun ñëpp benn lañ waaw wax dëgg yàlla mais loolu bu amee di sant suñu père Birame Ndiaye parce que moom bañ na ko ba ne écurie Birame Ndiaye amul amul ñëpp a fa lay wax moom moo andi loolu quoi di ko sant ko ñaanal moom nam gudd fan bu baax a baax a baax a baax waaw Papa Sow Siteu sa neex la waaw combat boo xamante ne addunaa ko yàqane parce am si instant bi nii kon ñoom am na fu leen nit ñi di xaar waaw bu ñu ñëwee nañ ko wane rek après lépp li nga xamante ne defoon nañ ko bee làmb ji ku si nekk moytu ko rek parce que yàqu yàqu na mais ndogalu yàllaa ñëw tamit yàlla moom xam nga lu mu bëgg rek loolu lay am mais tamit moytu daf daf ciy bokk quoi waaw combat bu neex la waaw di ñaanal na Papa Sow yàlla may ko ndam waaw parce que ñun suñu ganaar di sonn si ñun bu baax te ragal féere day xañ a wërsëg waaw. loolu yëppante sa waay. caati nga li ko wax mu gën a ni mu waxee. ñëpp di ko xaar waaw bu jour baa na andi loolu ci jëf rek waaw parce que man ñëpp xam nañu arbitre bu sifflé si koom laa jëm si mu yëg ko mu ñàkk ko yëg moom sax leer na ko. su balaa nga départ du yëg si ba pare. non non Ada Gueye moom day déglu daf may déglu mais man xaaruma ay déglu xaaruma dara moom li mu andi sax concerné ma man incha allah war a sifflé si caméra laa nekk di wax maa ngi si ko. da nga bëgg a diriger. dama koy diriger sax caatu yombul diriger nag. man ku may bëreel dama lay diriger. ànd nag vraiment caatu ànd est-ce sa mafia di naan sa xel dal. non du affaire de. yow man sama làmb yëpp ban laa ban la si arbitre siffle ma taxaw di déglu amul yëpp yëpp yi moom mos a bëri sama carrière mbapat ak arène ak lépp su arbitre siffle maa lay diriger nga bëgg nga bañ maa lay diriger dama lay diriger. yóbbante ko mu ngi lay seetaan jàkkaarloog moom fii. a caatu ngooy li ko wax moom mbayaar bi muy wooteeg man la lii man la laa wax xam nga nañ dëggal suñu bopp ak lépp bu mu ko wax nii nii rek pour pour pour nax ay supporter am waaw bu jour ba na gore rek amateur ñu ngi ñu xaar na ñëw ñu samp tànk yi rek xam nga waaye jaayante ko kuwa ñeme jam-jam yi bëre lu neex wër na Serigne Touba mooy loolu. maa lay bëgg joxal gars yi rendez-vous yi waaw la siis na ñëpp wàcc ñëw lu ñu mësul gis si man moom incha allah ba si sax dinañ ko gis bu jour ba si wàllum bëre ak xeex beeg lépp. donc si bëgg a wane sa bopp. waaw bu baax incha allah. waaw yooyu nag si la mbër bu ndaw di wane boppam. waaw. di si di sant ku si mel ni Baye Ndiaye suñu grand waaw ñoom Kéba baak yëpp grand yëpp maa leen di bëgg waa Talu Bees maa leen di bëgg bu baax a baax xam nga di bëgg ñoom Mor Guy gi ñoom Bilal xam nga ak ñoom mën a sam waay Mor kii Ndour Mor Guy gi waaw Bilal Moustapha ñëpp di leen bëgg Omar Yego ñëpp ñoom Taba xam nga Serifo boo res tamit maa leen di bëgg bu baax ay di leen bëgg bu wér a wér di waa zéro di woo waa Grand F Sanzala ah, waa Opine Daaru ñëpp maa leen di woo waa kii waa Liberté 4 tamit bu baax a baax maa ngi di woo ñoom am di Moustapha di bëggee Ameth Sara bu baax a baax di ko ziar ko woo tam di woo waa jëppal ñoom tam ñëw jàpp si combat bi di woo Baye Daara ak Baye Fall yi li déranger mbër yi Baye Fall yi Baye di woo bu baax a baax di woo waat Daara Jolof di woo waat Ameth Ameth kii tam maa ngi koy woo bu baax si combat bi combat bi booba tey waaw ñu ngi lay déglu Ameth Touré waaw di ko woo tamit di ko wax mu ñëw jàpp si combat parce que xam nga lamb ñëw na te lambam la di woo Grand Ela di woo Sonatel si combat bu baax combat la waaw di woo waa tamit waaw di woo Acam Acam tamit dañoo jàpp si koom Ahmed Fall maa ngi koy woo di ko bëggee di bëggee Benz suñu góol bi waaw di ko bëggee wér wér a wér di bëggee ñëpp waaw yaa ponkal bi bëgg naa. oui delloo ziar gaan ah, si staff bi nga bokk nag. waaw waaw. ngeen di ah, le 6 incha allah ñu ngi koy waajal bu baax a baax comme que gis nañ ni bis bu mag la hmm. waaw ñu ngi koy waaj daal ci plan yëpp nag anam yëpp ñu ngi koy waaj. ci wàllum mobilisation ci wàllum dugg si ci wàllum cosaan bi mbër mi war a dugg seeg lépp lépp daal ñu ngi koy waat ci kàttanu yàlla incha allah rabi waaw. saxal dana si sa waay. kan kii kii de lenn la jooy ci moom bis mu dem entraîné rek te dem tëddi loolu kese xalaatuñ ci leneen ndax am naa ne lépp lu sawaay indi rek dina ko fekk ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk waaw. non lépp sama xel dal na macha allah instant yii nii kañ moom lenn la ñuy ñaan. wax naa ko bépp dama koy waxaat. damay ñaan la 6. ñaan yàlla sunu borom ànd ak ñun. caatu ngéwél lenn lañ koy wax. moom jaru muy def dara. man maa la koy wax yàgg naa la ko wax tam maa la koy waxaat jaru ngay def dara. yow li ngay wax yëpp dëggalal sa bopp rek le 6 incha allahu rabbi li fay neex sa waay moo koy def muy bëre muy xeex jàpp la dugal la top 5 incha allah bu neexee kii may. incha allah te noonu lay demee. dégg la. waaw mais nag ñi ngi woo ñëpp di leen woo ni leen lundi le 31 incha allah fii ci terrain 22 bi open press Anaconda di ci woo àdduna di ci woo ñëpp caméraman yeeg àdduna daal ñu ngi leen woo presse bi yëpp ba ku waaw te boo fa ñëwee nag bis ba incha allahu rabi dinañ la jox kele bi nga xamante ni incha allah le 6 mooy daan caatu ngéwal yow tamit ñu ngi la ciy woo bu baax a baax nga ñëw ci. ak sa mbokk yeeg yëpp bàyyiwuñu kenn. incha allah Liberté 4 mhm. waa Liberté 4 am na Moustapha gars yi nañ takku def convoi bu dëgër ñëw ci open press bi yoole ko waa reste du monde gars zéro heure bi. Grand Yoff Senzala Open Dio Daaru bàyyiwuñu kenn woo na ñëpp waa cité millionnaire mhm. jël loxo bi teg ko si ñoom Issa Ndiol ñoom Ba Yàlla ñoom ñëpp gaan ñu waa Maki. ñu ngi leen di woo ci open press bi la le 31 incha allahu rabi ak waa Grand Médine ñu kenn daal bu ñu limee daal dañuy juum kii mooy mbëru Baye Daaru yeeg Baye Fall yi amul leneen barke Serigne Touba kon képp kuy Baye Daaru ak képp kuy Baye Fall da nga war a mun a ñëw jàppale ko barke Serigne Touba Mbacke di woo ñëpp ba pare nag gaan dama la bëgg yóbbante benn wax ju important sa waay daf fi nekk boobu ba tey mi ngi jël lam mi ngi def lépp mais gars yi bonne volonté yi nañ ñëw jàpp sa waay loolu nañ si ñëw jàpp bu dee bu dee dee bu dee nit yi nit yaa ngi fi yaa ngi dégg bu dee nit yi nit yaa ngi fi bu dee mobilisation mobilisation baa ngi fi mm-hmm. mais lenn mooy problème ñun bu ñu amoon moyen yeeg yooyu noonu ñooy jënd bolo gi booy dem ci mais amuñu moyen ñu ngi ciy woo bu baax a baax a baax waa jàmbaar production ku ci mel ni Mansour Ba ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp ci billet yi Père Ba ñu ngi koy woo Papa Gueye Xeer ñu ngi koy woo bu baax Grand Max bu Liberté kat mm-hmm. ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp ci bu baax a baax Matar Diop suba teel ñu ngi koy woo suñu père suñu xarit suñu lépp ñu ngi koy woo mu jàpp ci artiste bu mag a mag bi Bass Thioung ñu ngi koy woo ni kon nag làmb ji Bass sa làmb la yaa moom ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci bu baax grand Ela ñu ngi koy woo Sonatel làmb ji moom moom moo ko moom lu mu ci def rek lu mu ci diriger mooy yoon ñu ñaan yàlla le six ci kàttanu yàlla suñu borom ànd ak ñun ñu am ndam bu sedd guy xooli leneen. dëgg yaan mbin ak feeña yaa mbin ab feeñ yaa mbin ab feeñ biir àll bi am na pël bu fay sàmm ay gaynde ci gaynde moo jël ma ci ñaari karaw ñu indil ma ko ci tafa mhm. indil ma karawu gaynde bi ko ɓaleejo eeyi woni ƴettifetel mum eyi ina abbe barottoya ina ɗi heeɓi waroy eyi yawat feere mbaɗa kattude bawal ma woto war hen hay ndiga daga def fexe mhm. ba gaynde yooyu noon mujjam mujjora e benn le 6 novembre ci arène nationale jàpp sa seen affiche point com di seetlu Moustapha Gueye ci plateau bi ak ñu ko dar ñu di wax lu leer nañ lu mel ni lañ set tey ci bët duma tey ñëw si miñ gàll ci loos duma tey ñëw gaynde gi sama kanam duma tey ñëw moo war dal ñaari mbir yi ginnaaw bi ñu la ñebee kon boog tëf.